Euh, sañuñu euh, ma wax parce que su ma waxee seen nguur nay daanu loolu aussi tamit dégg nañ ko mu nekk wax boo xamante ne aussi bu ñu ko bu ko déggee tekki ko aussi euh, mën na mën na firi lu bari sañuñu ma wax su ma waxee seen nguur seen dafay daanu parce que loolu la wax ci audio yi mu wax Baye Mbaye MC loolu la ko wax ndax li ma leen xamal dafa bari mhm. su ma waxee seen nguur day daanu mhm. no Adji Sarr ngi bëgg moom mhm. parce que version yi bari na trop version yi bari na trop torop torop torop torop torop torop Adji Sarr lan la mel ni benn ñebbe ci cin version yi bari na torop torop parce que quand même nag trop c'est trop dafa mel ni daal ñun dañuy fooye ñun non dafa mel ne wala ñun amatuñu bon sens amatuñu xel pour analyser pour euh, xalaat xam nga lan moo gën a bon ci àdduna mhm. di foowe intelligence doomu aadama yi mhm. te ñun ñu ngi fawee suñu intelligence quand même bu doon benn xel mu ndaw sax suñu borom bi rof na ko suñu jëmm yi nag mhm. kon am na loo xam ne situation bu fa tolloo. ñoom ñi war a génn nañ génn. ñu yeewi askan bi parce que askan bi yëpp tënku. nee na moom procès la bëgg. ñi koy jàppale du ñu am gàcce du ñu rus. bu dee loolu la bëgg. mais lii kay est-ce que mën nañ cee xaarandi xaarandi procès. ma daal ma ak ak ni mbir actuelle bi demee nii. dafa mel ni parce que ñoom bi ñu jógee Ousmane Sonko bi mu jógee ci confrontation bi euh, ay euh, avocat am lu ñu doon wax mooy que ni fi mu toll nii daal non lieu donc ñoom ni Adji Sarr di waxee procès ñoom aussi noonu la taxawee di wax li nga xamante ni moom mooy non lieu te encore une fois éléments yi nga xamante ni xamuñu lu nekk ci dossier bi waxuñu loolu mais li nga xamante ni yegg si na ci espace public bi muy audio Sarr te tamit lu am solo tamit muy sortie bi nga xamante ni docteur euh, Alphousseyni Gaye def na ko tamit mu nekk tamit yeneen révélation d'ailleurs ci sax la dikk bi nga xamante moom euh, Kéwoulo donc je euh, donc recevoir na ko ñoom ñaar aussi ñu waxtaan mu wax nga xamante li nga xamante ni moom mooy ni ñu koy waxee kiiwu gene ko yooyu diagnostic xaw ko donc jour boobu noonu décrire na ko décrire ba jours yi nga xamante moo topp ci euh, journée euh, première journée bi donc li ci am seen bi nan la demee kan moo indi Adji Sarr kan moo ko woo téléphone kan moo ko boole ak moom ba wax que ni le lendemain même moom bi nga bi nga xamee ni def na liggéeyam euh, dañ ko jour boobu dañu ko woo comme possible di ko laaj lan mooy résultat yi lan moo nekk ci ci affaire bi donc beneen bi ci des ñu ñëw aussi ba fi muy liggéeyee après mu gis que ni Adji Sarr était accompagné par trois quatre gendarmes yoo xamante ni pour une fille qui se dit que ni dañu ko dañu ko violé donc ma gis mu am toute cette protection la ci la commencé xelam di ñaaw donc mu nekk loo xamante ni euh, boo ko déggee ci ki nga xamante ni mooy la médecin quand on viole généralement euh, médecin bi nga xamante ni moom moo def euh, constat bi moo def rapport médical bi aussi waxam tamit dafay nekk révé dafay révéler aussi lu bari ci vérité bi aussi moom bu ñu ko déggee nii plus li xaw tey mooy li ma wax sànq est-ce que lépp nekkul di avantage ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko. bon parce que déjà moom moom médecin bi ni mu waxee déglu naa ko depuis démb. Mhm. wax dëgg yàlla dama bi ma ko dégloo dama ko sax yërëm parce que mi daal. Mhm. en tout cas maa ngi nii rek maa ci loxo yàlla. Mhm. maa ngi nii maa ngi ci loxo yàlla parce que depuis problème bi neen day jékki-jékki otoom. mu gis ku nekk ci ginnaawam. nee na parfois parfois mu jékki-jékki gis ko ko ko ko ko xaw a mbëkkaale. mais ñoo ñu koy def ñooñu tamit ñooñu ñan lañu. après mu ne bon man daal de toute façon lu ngeen ci mënti dégg daal mooy jël naa sama bopp jox ko suñu borom subhanahu wa taala parce que daal damaa tiit dama ragal. moom médecin bi. médecin bi dans tout sax boobu ba tey fan la nekkoon. révélation yi nga xam ne moom la def actuellement lan la doon xaar pour mën ko def. parce que man foofu tamit comprendre ma. dafa mel ne li ñu posé woon rek ci euh, Baye Baye MC. moo tax mu xaar mais est ce que xaar ba ñu ba ba bi woo ci instruction bi nga xamante ni. moom euh, moom juge bi woo na ko. moom juge bi woo na ko. ah moom tamit juge bi comme mbir la moo xamante ne wax te pare. c' est là où nécessaire maintenant de génn aussi leeral bu fekkee que ñoom ils sentent que leur vie est danger. te ni mu mm-hmm. waxee dafa mel ni que ni euh, mbiram mu ngi ci danger mais lu am solo lu mu Adji Sarr bi ma gis jour boobu nduruwul ak koo xamante ni euh, dañu ko dañu ko violenté dañu ko dañu ko violé donc nduruwul ku ñu boo ko defee consultation di nga xam violé nañu ko violé donc moom ci li mu wax non ci état xam nga déjà bala nga sax violé ah ok ci état bi ngay gisee nit ki xam ndax kii nii fi mu jógee mbir mi tey la am Euh, ci état bi mu nekk boo ko xoolee rek et puis les médecins tamit euh, am nañu formation boo xamante ni mën na leen permettre bu ñu jàkkaarloo ak nit ñu xam exactement est-ce que kii nii ci heure yi nga xamante ni moo passé est-ce que dafa dund benn traumatisme bi est-ce que dafa dund yenn violence yi wala dund ko te ni mu waxee moom nee na vraiment Adji Sarr bi mu gis jour boobu nduruwul daal ak koo xamante ni ci li mu wax ni ci loolu la jógee jógewul ci loolu mais moo ko consulté non moo ko consulté kon buñ ko violé xam na buñ ko violé wul xam na mm-hmm. xam nga am na loo xamante ni ni am mi ngi mel te yow mi journaliste bi toog mënu ma laa defloo sa liggéey mhm. sa liggéey am na loo xam ne yaa ma ko gën a xaman mi toog lu mhm. dëgg mhm. yow mi médecin bi te nga defal ko consultation. Mm-hmm. yow xam nga en âme et conscience ba xam kii subir na viol wala subiru viol parce que il suffit nga consulter ko di nga xam ba xam kii subir na viol wala subiru viol. Mm-hmm. amul sama dem ñëw. Mm-hmm. donc foofu du du du du ki ma gis ki ma gis. ki ma consulter la. ki ma consulter kat violé nañ ko wala violé wuñ ko. yow yaa ko mën a parce que yow yaa ko consulter. mais soo nee après finalement dañ ko proposer mi ngi nii xaalis bu bari non da Adji Sarr bi ma gisoon dara dalu ko

ni foofu la dëkk si je ne me trompe pas muy Kolda foofu la nekkoon euh, donc Ousmane Sonko ci élection locale yi bu muy def campagne euh, jaar foofu donc mu gis ko ci kaw oto muy jàll donc nee na benn gisante boobu noonu la mës a gisante ak Ousmane Sonko pour ñuy laam-laamee est-ce que dafa pare voilà côté bële donc donc loolu aussi andi na ci ay euh, ay ay leeral rapport médical bi aussi ni ñu ko bindee tamit ñëpp gis nañu ko prélèvement bi ñuy wax que ni def nañu ko donc en vue d'un test ADN aussi donc loolu noonu yëpp posé nañu ko ci question mais bu ko ci sori comme nekk ci loxo mhm. justice mais pour le moment on retient li nga xamante mooy les versions en tout cas diggante Baye Mbaye MC Adji Sarr ak waxtaan bi nga xamante ni Trois Pommes seq na ko ak ko révélé ñun mm-hmm. fait le tour du monde pas seulement Sénégal mais tas na àdduna donc parce que mm-hmm. dafa nekk dossier boo xamante ni ça tient quand même en haleine et puis ça nous intéresse parce que encore une fois on rappelle que c'est quatorze sénégalais qui ont malheureusement perdu euh, la vie donc dafay jaadu nag bu ko defee ñu waxtaanee ko yaay booy. Mhm. Mhm. loolu la rek juste que ñu xam ni ñun euh, yëg-yëg bi ci doomu aadama yi am rek lañ ci am. Mhm. ñoo ko bokk. su mettee ñoo ko bokk su neexee ñoo ko bokk. donc euh, dossier bi toll na foo xamante ne nii moom actuellement nii nii nii nii là nii am. ñi war a génn nañ génn. maître El Hadj soxla nañ la pour nga génn. leeral ñu. jox ñu ay éclaircissement par rapport ak audio yi nga xam ne moom moo génn par rapport ak wax ju rëy ji nga xam ne moom la Adji Sarr wax ak ki nga xamante ni moom mooy Maty Trois Pommes parce que version yi bari na torop te mënuñu ci sukkandiku ci benn version parce que bu waxee fii lii suñu wati ko déggaat ñu ne waxaat nañ feelee bu ñu wati ko ni déggaat ne waxaat nañ fëlale donc mhm. maître génnal ñu war a génn nañu génn lu mbir mi fu mu war a tax tegu ñu xam ne fii la war a tegu ñu def ca lañ ca war a def Sénégal yëpp Sénégal a libre kenn ku ci nekk aussi sa esprit mën a tranquille ci ci jafe-jafe bi nga xamante moom la ñu dund depuis boobu. Mhm, mhm. en tout cas doy na donc mu nekk mbir moo xamante on va suivre euh, ça donc de très près donc lépp loo xamante ne rek euh, jot nañu ko ñun dañ ko waxtaanee ci cas bu bees comme ni ñu koy defee tous les jeudis tous les samedis à partir de 21h donc tey euh, loolu moo nekkoon point bi nga bi rek la pour indi ay leeral ci ay cas yoo xamante ni donc on juge nécessaire d'en parler pour édifier indi euh, ay leeral ci information yoo xamante jot nañu ko gërëmaat bu baax a baax toute la rédaction de Sénégal 7 ci liggéey bu am solo parce que aussi yenn information yi tamit ñoom ñoo rédaction bi la koy baaxee bu defee ñu mën ko partager ak suñu ay euh, internautes yaay booy donc tey malheureusement foofu la ñuy yamandee ci bees parce que euh, voilà am na yeneen mbir yoo xamante donc ci ay liggéey dañu caa war a dem nekki <laughs> encore une fois je rappelle que ni décembre la nekk donc aujourd'hui on est le 22 euh, gërëmaat leen bu baax a baax ci ànd bi ngeen àndoon ñun euh, Père Noël dégg naa dafay ñëw ci kër gi la donc petit papa <laughs> Noël ñu ngi xaar suñu ay cadeau Père mhm. ñu ngi xaar suñu ay cadeau am xanaa di kontaan bu baax a baax a baax di dellu di wax alhamdulilah rabbil alamin di mhm. sant di ñaan yàlla suñu borom bi nga xam ne dara tëw ko mhm. dossier bi yal na suñu borom bi ndox mu sedd guy barke yonent bi nag parce que ndox mu sedd moom rek lañ soxla soxla wuñu leneen nag mhm. yal na ci yàlla wis ndox mu sedd guy guy guy guy guy guy fi dëkk bi nekk suñu borom yóbbu ko fa am situation am na fu muy toll foo xam ne mhm. yàlla rek moom mooy atte yàlla muy atte nag yàlla na suñu borom bi atte ko mhm. te atten bi jaar yoon mhm. te it suñu borom bis ci ndox mu sedd guy bu ko defee sénégalais yëpp seen esprit mën a tranquille ci décembre lañ nekk di souhaiter ñëpp bon fête de Noël damay ragal nii le vingt du fekk ñu liggéey si le vingt cinq ce sera un samedi ce sera un samedi kaa hmm, bu bees spécial Noël <laughs> incha allah campagne spéciale est ce di takk suñuy Père Noël Père Noël ah daal di sol suñu ay chapin def suñu ay yëf. nga nekk maman Noël. ma nekk maman Noël nga nekk Père Noël Adjumas nekk Tata Noël Tata Noël jeex na. <laughs> ba samedi incha allah bu soobee yàlla incha allah le 25 noonu ñu ko defee en ak yow di waxtaan sénégalais dañu la bëgg bu baax a baax. Ah. ndeysaan jëmm ji rek bu toogee da ngay gis déjà message yu commencé daw Tata Ami Collé. dañ la man maa jur ñëpp man Aminta laa tudd man maa yaayu sang bi Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam. ah macha allah te ku ne xam na ni euh, Aminata moo jur Mouhamed. kon boo juree Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam. yàlla suñu borom def ñu dippee la tur bi wëlbatiku nga amaat doomu tuddaat Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam jàpp ne yëpp ñëpp yaa jur man pour man képp ku taxaw ci àdduna sama doom nga bari ngay doom waaw allah <laughs> loolu sax lay <laughs> déere yow doo kenn doo ci <laughs> kenn merci beaucoup ça fait toujours plaisir donc ak yow c'était votre émission KOBS amee internet de Sénégal 7 gërëm leen bu baax a baax tey amee Adji Mass euh, donc nekku fi dafa nekkaat ci beneen liggéey comprendre donc Adji Mass euh, elle nous a vraiment manqué euh, nga xamante ni yéen doon teewlu merci à toute l' de Sénégal 7 junior ki nga xamante ni moom mooy euh, grand Thiaw ci région bi ki nga xamante ni mooy euh, suñu caatu kër kooku mooy euh, tuuti di nga xamante ni elle est exceptionnelle formidable ci ek liggéey bu am solo bi nga xamante ni moo ngi koy def merci à monsieur Mboup monsieur Ndiaye madame Ndiaye aussi tamit ñu ngi xaar cadeau ya ah, <laughs> ci ci décembre bi la ci décembre bi allah donc samay kaddu kaddu waa équipe kaa bu bees la ñoo ma yóbbante ma wax ko comme ni ñu koy waxee yóbbante ah la donc ah, je pense ni voilà. ñoo ko wax bëgguma am ak euh, yéen benn ah. ñoo ko wax <laughs> ñoo ko wax. alors ngeen mën ko teelu aussi tamit euh, entretien exclusive avec les filles de Sen Petit Gallé All Star donc tey ci waxtaan boo xamante ni sëq nañu ko ak ñoom donc ce sera à suivre sur Sénégal 7 way leen d'ailleurs di seetaan suñu ay programme parce que mbégte kese la surtout ci fin d'année bi ñu fanaan ak jàmm ba ëllëg incha allah.